Cheikh Abdoul Qadir bi nga xam ne wër ki démb la fi jóge ñu di ko fàttaliku muy imaam boo xam ne ñëpp a daan barkeelu ci julleem seede na ci moom ne gis na sëriñ Touba gént na gis ko sëriñ Touba xamal ko ni ko Mouhamadul Mourtada day yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko gërëm naa ko keroog ba ñu jot lee xabaar bi sëñ Mourtada nag sëñ Abdou Khadir ko wax nee na ci gént daf leen na koy woyefal boppam a ngi noonu waaye du gént ci moom kon loolu ku ne xam na ne cër bu rëy mënut a weesu ni ma ko nettalee woon. keroog bi Cheikh Mouhamadul Ballou ji ñëw seet see Serigne Moutada sëñ bi yebal ko mu war a dem ziara ji sëriñ Saliou kàddu yee ci jub yéen ñëpp dégg ngeen ko daf leen ne ñëwug sëriñ Moutada gi mooy sunu ñëw mboole sunu waaye fu mu nekk nu fekk ko fa. ki loolu Serigne Saliou loolu la waxoon ne ñëwug sëñ Moutada mooy sunu ñëw su mboole sunu te fu mu nekk nu fekk ko fa. te sëriñ Saliou moo joxe waat ndigal Serigne Mame ne ko doxal kon loola la muy tekki mooy Serigne Mourtada mooy ki dellu si waat su ko defee nag ñu xam ne liggéeyub sëriñ tubaab bi ni ko sëñ Mame Mor di waxee yaa rabbi ijalil muridina maan fi xisnikal xasini wajma la loolu bu ngeen ko gisee xam ne booleel ma murid ñu nekk benn waaye ci fi nga leen di boore nay tata jooj dara du leen fa fekk ba man leen a yàqal moo tax coow la fay dégg ci murit yi ko coow ci daayira xew-xew la coow waaye lu yàqoo du fa am ndax ci tata ju ñu defar ba noppi la ñu nekk ku nekk ci tata ju ñu defar nag munoo wax a wax a wax boo doon tëradi it mbàjj muñ la sàng la sa tànk du génn ci biir loolu nag kon ginnaaw leeral na ba tey ne murit yi li tax bu ñu tàqalikoo mooy ay xale boo leen dajalee jox leen juróomi dërëm te xale yi di juróomi nit bala ñoo tàqalikoo nga séddale leen ko kon a jël dërëmam waaye ginnaaw nun la nu sëñ bi boole mënaguñ koo jot ndax fam nu koy séddalee kenn àggagu fa ci nun kon ànd bi li sëriñ maam moo di wax ne moo gën a yomb tàqalikoo ci nun lu leer nañu la su ko defee nag lu sëriñ Touba jël mu daj Sénégal ñëw ba États-Unis d'Amérique yegg si fii ci capitale bi foofu ay lu am solo ngi fi xam ngeen ni mosquée Ndayane Six bii nu nekk invité nañ fi Cheikh Mouhamadul Mourtada keroog buñ koy invité Serigne Mamor a ngi ci invitation bi Serigne Moustapha ngi ci waaye keroog bi ñu dogee ci Ndayane Six fii ab jëw la ñu jëwoon boo xam ne xam le ne murit yi ak julli ñoru leen ba fa Serigne bi demee waxtaan ak ñoom sëñ Mamor bind lu bari jox imam bi keroog bi ñu noddee muy une heure julli tisbaar jot. sëriñ bi dana balaa génn doy julli ba mu jullee tisbaar ba noppi imaam bi daf ko tagg daf na jëmm ngi nii joo xam ne ku jox julli xàqam ngi ku teewlu jullee ngi ku mën a jullee ngi nii ma bëggoon ñu def ak intibaax ci moom ak yeewu ci moom ndax jëmm ji ngeen di gis xam ngeen ne sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam am na ci ñooñ dem nañ ba am fanweeri at door dugg ci diine islaam te yàlla may na leen ndam ba yàlla di leen tudd ay si ay saar di leen tagg di leen gërëm ngir seen farlu ak seen jàmbaar waaye jëmm jii nag am na ñoo xam ne yàlla tudd na leen aw saar ci alxuraan waaye jëmm ji lii am ba des moo di alxuraan ko fee jiitu waaye jëmm ji boo xamoon ne moo jiitu alxuraan bu yàlla ñëwee aw saar la koy tuddee ni mu ko suddee Ibrahima ak ñeneen ñu dul ndax fa mu jógee ci Afrique di daj la muy daj di tasaare yoonu sëriñtu islam bi mu nekk jaar Europe jaar asi ba ñëw États-Unis di amat fi ñëpp daje di fi Carrefour bu fi la ñëpp daje mu góor góorgóorlu ba samp fi raaya woo xam ne mu ngi yëkkatiku ci lislaam te ku ne xam na ne fa mu jógee ak taw amu fa mbay muy nangoo ko gàntu fa nekk or amu fa pétrole amu fa loolee kon warees naa mën a xam ne jëmm ji la mu nekk lu mat a naw la lu mat a jàpp la waaye loolee nag tey ma bëgg ñu xam ne nekkatul ci wagg gi kenn comme ni ko sëriñ bi waxee ku dul waggi taalibey sëriñ Tuubaa yi ab yan nag bu fekkente ñoo wax ne yan yan bu diis la yow mi ko yanul pour ñu xam ne da nga koo attan da ngay bañ a ŋaax ŋaax di yooxu mooy ñu jàpp ne da nga attanulu bi yan waaye wóor na ma ni taalibey sëriñ Tuubaa yëpp attan nañu yan bi leen sëriñ Tuubaa attan ndax kenn ku ci nekk defal na loo xam nga ne ab yan diisatul ci yow li nga xam ne nag kenn du ko joxe te ñoom ñoo ko yoral seen bopp mooy njabootu Cheikh Amadou Bamba mooy amaanatu diin ndax yàlla keroog bi mu yëkkatee responsabilité diine di ko joxe def koo jëmale asamaan mu ne ko attuma attanuma ko mu jëmale ko suuf mu ne attanuma ko ma jëmale ko ca doje ñu ne attanuñ ko waaye ndekete yàlla nee na bi ma koy yenoo bi ma koy yen nit laa ko yen te moo ma koy yóbbul fa mu ko bëgge muy inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abbayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan innahu kaana zaluman jalula jahula kon ki yore yenu yen bi yenu na ko muy Maulana Cheikh Amadou Bamba ki mu ko teg ci loxoom mooy Cheikh Salih Mbacke ki mu sant mu ñëw ngi ànd ak yéen ngir liggéeyal sëriñ Touba ci tasaare yoon wi ak bennoo ak nekk benn ba ku déggul woon sëriñ bi dégg ko ba ku ko gisul gis ko ku ko xamul woon xam ko te yooyu yëpp xeet yi koy doxal mooy doole ak xam-xam ak xel ak bennoo loolu mooy li am solo te sëñ bi daanoonu dénk ay aaya yoo xam ne bu ko fàttalikoo moo ñuy dimbali ci période bi nu toll. bu ngeen fàttalikoo mu daan wax naan wa aydollahum mastatatum min quwatin wa min ribatil xayl na ngeen boole seen doole boole seen kàttan ba mu nekk ngir ngeen mën a tiital noonu yàlla yi xam ngeen ne kon doole bu àndul tiital nga munta am mu daan ci waxit dane wala tanazau fa tafshaloo wa tasada riixukum bu leen xëccoo bu leen def ay tiiraay may seen diggante di xool ay njiit ak su ngeen ko defee da ngeen di échec te bu ngeen échecee da ngeen perte intérêt yi ngeen war na am yëpp kon loolu lu ama ama am solo la ñu ngi ñaan ki nga xam ne moo bokk ci mbooloo mi mën a doon ci àdduna nañu xam ne njiit suñu borom moo koy sàkk te it woote yomb na lool ku mu neex nga def fi barab woote waaye woote bu am ndigal mooy yombul wa daaiyan ilallahi bismihi wa sirajan muniran Serigne Touba moo am ndigal Cheikh Saliou mooy joxe ndigal tey jox na sañ sëñ Mamour ndigal ne ñëpp àndak ak ci liggéey bi te bennoo te kenn ku nekk xam ne li koy doxal mooy nga def sa morom jox ko sa loxo waaye gàllankoor yi benn laxza képp liggéeyub sëñ Tuubaa ci sa xalaat ak sa bëgg-bëggu bopp ak sa gisinu bopp si la ci ab taalibe bi yàlla nañu yàlla jàppale ba nu àndandoo liggéeyal sëriñ bi ndax mooy li munta ñàkk li munta ñàkk nag fokk na xool noonu koy defee ba def ko asalaamaaleykum